rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ndokkeel noo ngi leen di ñaanal ci weeru tedd wii nga xam ne moom la génne yal na yàlla nangul nu sunuy jaamu yépp nangul nu sunuy koor nangul nu sunuy naafila ci barkeb sëy juwa noo ngi leen ciy ndokkeel bu baax di ñaan yàlla nu fekkewaat ko nëgë ni déwén dama ànd akuk dal akuk tal loolu yomb na yàlla di yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne baaxoon nañ koo yëkkati ci bu bis mel ni bu mel nii bu amee kàddu yi kàddu yi yeete rek lay doon kàddu yu soññee rek lay doon ci li ñu fi indi te bàyyi nu fi te mooy diineel islaam ginnaaw dañoo waroon di daje bis bu set di ko waxtaane wala weer wu ne ñu di ko waxtaane bu mun taam kon war na at mu neenu di ko waxtaane ba kenn ku nekk yóbbuloo ci loo xam ne su sa xel demee sa xel delluwaat gannaaw yokkaat sa ngóorgóorlu xam ngeen ne nag jamono bii nu toll jamono bu metti la bu doy waar la nu di sargal imaam ak imaam yi yépp ci seen taxawaay yi mettik jamono taxu leen dellu gannaaw taxu leen a yox yoxu yox yoxi taxu leen a bàyyi lañ jàppoon kon noo ngi leen ci sargal bu baax te di leen ñaanal yàlla na yàlla kàttanal leen te dëgëral leen di siyaare tey sargal tey ñaan tey ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na yàlla dëgëral ko te kàttanal ko kilifaa ngi noonu gu mat kilifa gu doy yaakaar gu dal xel goo xam ne gi képp koo xam mooy sa kilifa te nga dëggal sa digganteeg moom sa nag sa àllaaxira lépp fay jag mate na ko ci wàll yépp yàlla na ko fi yàlla bàyyil te dëgëral ko te kàttanal ko ba li mu bëgg a liggéeyal lislaam bëgg koo liggéeyal yoonu murit bëgg koo liggéeyal sëñ Touba yàlla defal ko ndimbal ba mu àggale ko na mu ko bëggee ba naal yeneen naal ci barkeb sëñ Touba yàlla mën na ko yàlla na ko def di sargal bu baax boroom xam-xam yi ndax metti jamono taxu leen bàyyi taxu leen dellu gannaaw tàmbalee ko ci al muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaa yi taxawaay yi rafet na lool yëg nañ ko wante al wafa bi nekk daaru mooti taxu leen naqari jamono taxu leen deltu gannaaw al minanul euh, al académie minan bi nekk euh, daaru minan bu sëñ Muntaxa seen taxawaay gis nañ ko julli yépp yëg nañ ko kon nañu xam ne xoolatul ayni bu kër sëñ Chouaïbou wala yëg nañ leen bu baax daaru salaam yëg nañ leen bu baax mboolem jàkka yi gédde fu fay nekk te doon yëngu yëg nañ yëngu bi bu baax tax na suñ xel dal bu baax xam nañ ne naqari jamono ak i jafe-jafe ak i tar-tar du tax mukk ngeen bàyyi seen warteef yàlla na yàlla kàttan nañ leen ñëpp yëg nañ leen sant nañ bu baax a baax bokk jullit yi dañ daan wax ne bada al islaamu xariban wa sa yahudu xariban fa tuuba lil xuraba dañ doon wax ne de lislaam ni bi muy ñëw ku tumaranke la kem googee waxtu wu nekk nag ñi ngi ko doon wax waaye defe naa tey jii nag la gën a dëggu nag tey jii xam nañ ne lislaam moom tumaranke na bu wóor tumaranke goo xam ne gii kilifa yu mel ni ne sëñ Muntaxa ak ñu mel noonu dong ñooy ànd ak lislaam ci tumurankeem gii yàlla nañu yàlla boole ci ñiy ànd ak lislaam ci tumurankeem gii ci barkeb Sëriñ Tuubaa ah adduna bi de yëg ngeen ne soppi ko bu wóoru te li ko soppi nag mooy yàlla dafa wax ne saaral fasaadu fil barri wal bahri bi ma amilat aydi nas wala ni si xaw ma baax la si yar laalum yarjiun dafa wax ne yàqu gi ne feeñ na ci jéer yi feeñ na ci géej gi waaye bu ci kenn tuumaal yàlla nag nañu xam ne bi ma amila aydi nas nit ñi seen bopp ñoo ko defal seen bopp wala nu siqannahum wala nu siqom baax la si amilu laxalam yarjiwoon yàlla nee na ma mosal leen tuuti nag ci li ngeen def lu ma jëy jublu mur ngir ngeen ngeen delluwaat xam ne fii ngeen teg seen tànk du foofu waaw xam ne fi ngeen teg seen tànk du foofu loolu lañ jublu kon nag tey yàlla wan nanu ko wan gu leer nañ ñi sëñ Saliou Mbacke yàlla yàlla yokkay leer dafa waxoon ne dafa waxoon ne ku ragalul yàlla de yàlla bind na loo ragal moom ku ragalul yàlla yàlla bind na loo ragal tey nag ñépp xam ne ni yàlla bind na lu ragal lu ñuy wax coronavirus yaa feebar boo xam ne bët mënu koo gis seetukaay yi xere yi képp sax ñoo ko mën a gis ndax tuutiwaay ba yàlla bind ci benn tasaare bi ci àdduna ji ba tey kenn talatu dara ngi kooku kon xam nga ne kooku de soo koy tooñ ci ñàkk jom nga ko teg waaye xam nga ne ki mën a bind lu tuuti loolu mu daj àdduna lakkal àdduna witt kenn mënu ci dara kooku de war nañ koo bàyyi xel bu wax kooku nag dara waralu ko lu may sunu melokaan wa ma asaabakum min hasanatin fa min allahi waaye nag wa ma asaabakum min sayyi'atin fa min nafsika lu baax de loo ci am yàlla la ko jox waaye safaan nag loo ci am yaa ko defal sa bopp yàlla amul lislaam de saa buñ ko tumuraankee lee yàlla moo koy fayul te loolu nag feeñ na loolu feeñ na bu baax ndax feebar bii de bi muy laataa ñëw ñu bari séntu won nañ ni dana am luy xew bi bi mbir mi laataa xew ñu bari ci doon nañ ci ndax siin gam jóge siin nga xam ne fa la ma jóge xam ngeen ne diira ab diira ngi noonu boo xam ne lu mat nangami million ci ay jullit ñoom lañ dajale ne dañuy laawee seen yuur gi ndax lislaam ji ñu jëm lislaam bi waruñ koo gëm baaxut dañ leen ciy génne di leen def lu bon di leen bu ndoxataal àdduna bépp wax àdduna bépp wax mënu leen leen dara foofee la virus bi tàmbalee waaye ba virus ba tàmbalee foofa kat bu leen jàpp ne bu leen jàpp ne ci ñoom la yem ndax yàlla du yàlla du fayee noonu mbir yàlla du fayee noonu mbir wattaqoo fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum sa yàlla nee na di wattoo taal fitna ndax fitna saa boo ko taalee du ci yow mi ko taal musiba du yem ci bopp borom noonu la ko wolof di waxe loolu nag mooy la ca xew bañ taalee musiba bi ñoom yàlla daf leen a waaye jullit yi nag ñoom itam taxawaay ba ñu war taxaw ci taxawuñ ko ñoom it yàlla daf leen di nattu musiba bu ñëwee bu dalee ci ku gëmut yàlla alkande la bu dalee ci ak jullit nag nattu la waaye ñëpp a jot seen wàll nag su ma la ko bëggoon a misaal dama lay misaal ni soo faboon lu niin diw ko ci sa tànk <coughs> sangale yi sam ko benn sangale yi moo la cay matt waaye boo dóoree téeméer ngay rey yàlla noonu lay fayoo yow mi defi ne bokkoo ci sax ci nga bokk moo tax itam gis ngeen ko alag na leen réew tubaab yépp alku nañ tey alku nañ tàmbaleel ci Amérique tàmbaleel ci Siin gam daloon tàmbaleel ci Italie Espagne réew yu mag yi nga xamoon yépp ñi nga xam defoon nañ ne weesu nañ fii ñoom la yàlla njëkk a toroxal alak leen ci microbe bi ñuy wax coronavirus doora yow ñëw ci réew yu jullit yi Arabie Saoudite nag foo xam foo xam virus ba dem na fa def fa musiba moo xam ne mu rëy la ba ak suñ réew yi lu war cee jànge lu bari nag yéefar yi war nañ cee jànge jullit yi war nañ cee jànge wante sunu Sénégal bi itam nag war nañ cee jànge bu baax ndax coronavirus bi dugg na fi de waaye bu fi duggee tam am na njàngat yu ci mën a jàngate jàngat yi mooy bi mu dikkee de xam nañ ne jullit yi ànduñ duñ benn wane nañ ko seen doxin wane nañ ko seen waxin wane nañ ko seen jëflante te feebar bi moo ko moo ko feeñal wante gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk it war na ci am loom ci jànge lim ci jànge mooy yëg ne doomu aadama yi gëmuñ ko te wóoluwuñ ko kon war nañ ko ci jàngee bu baax war nañ cee jàngee ne politiciens yii fi nekk nit lañ yoo xam ne yii nekkaluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal ndax ba mbir mi xewee ba léegi kenn ku nekk la nga yor yaa nga ne kat jéemoo wax sax luy luy tax nit ñi am jàmm war nañ cee jàng itam ne sunu daar yi nga xam ne ci lañ bëgg a fër profito pour tëj ko yàqal julli yi seen diine te julli yi ne ci cell ñoom itam jéemuñ ci dara waxuñ ci dara kon daanaka tomb yooyu rek lay doon tubaab yi de yàlla toroxal na leen yaa ngi tàmbalee ci Amérique ñu bari dañoo yaakaaroon ne Amérique moom kattanam àgg na ci fi mu bu ko neexoon mu daal di régler bu ko neexee mu tas adduna léegi wante ci feebar bii yàlla wane na ci ak ñàkk kattanam ak néew dooleem ak ñàkk xam-xamam ak ñàkk man-manam ndax ñi néew doole sax liñ ci mën a kës néew moom yàlla dogal na far ko yàllaa ko jublu woon ci weer ko waaye mënutoon a ñàkk noonu la def Siin noonu la def Italie noonu la def Espagne noonu la def Angleterre mboolem réew yu mag yépp noonu leen def leen ko teg nag mooy yàlla moom saaboo boo xamee ne moom ngay xeex suba goo xëyee rek sang dong daa tax suuf yàlla moom yàkkamtiwut kon ñoom yàlla wan na leen lim leen di wan xam nañ ne mënuñu tële nañ te feeñal nañ ko ci kanam àdduna ak France ak ñëpp jullit yi yàlla wan na leen ne seen seenug yaafus ak seenug deltu gannaaw ak seenug mbon sax laa koy waxe ndax suñ toogee bay tëj kaaba ga ngir ab virus te alal ji war a tax ñu fegu ko nekk fa seen loxo ñu di ko seetaan jéemuñ ko aar jéemuñoo aar jullit yi lu may dara du seen métier lu may woo Amérique woo Israël moom Arabie Saoudite ngir ñu aar ko ci diggam ak Iran te Iran di mbokkum jullitam sa mbokkum jullit ngay wooyi say noon noon yee ñoo lay aar sa diggante ak sa mbokkum jullit ñu dala fayu ay milliards yu dul jeex coronavirus bii ñëw dugg ci biir réew ma mënoo financé xaalis ba ba ba jul yi mel lañ war a def li ñu waroon def tey jii ña nga ne tëj kaaba ga umra kenn defu ko tey yàllaa xam ndax danañ aj màkkam déet kon de lislaam tumuranke na foofee nga xam ne mooy ballukaay yi lislaam ndegam kaaba ga lañ tëj kenn ku nekk fa nga nekk booy ba nga bàyyi sa xel te xam ne liiraam ci ñeg bi la jëm booy boo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax yàlla toroxal na leen ci Libye ñi ngi bombardé jullit yi di leen rey ñuy mel ni ay weñ ci kaw ci ci ci ci mbedd mi biig weer yu feeñ ñu war a fa ñu war a fay war a xëy feetu feetu korité boo demee yaman looloo fa xew boo demee diggante Iran Amérique dégg nga ko boo demee Syrie looloo fa xew ñépp xeex xuloo rek mooy seen métier waaye jéemu ñoo défendre l'islam jéemuñ ci dara moo taxit yàlla indi na na joo xam ne bii kenn xamul fu muy tàggoog moom kon l'islam tumuranke na wante boo demee France loola fa xew ñëpp la jaaxal wante nag bi mu ñëwee suñu réew mii nag daa ànd ak yooyu yépp ba noppi nag wàññeekuwaat nag diini ji seen bopp waat wane seenu ñàkk ànd ak seenu ñàkk déggoo ndax bu ñu demee ba tëj jàkka yi te bi ñuy tëj jàkka yi ñoom julli yi ñoo ko waxal seen bopp gouvernement bi de luñ ko yab yab musta wax ne tëj leen jàkka yi julli yi ñoo daje woon ñoom ne dañuy tëj seeni i jàkka bi gouvernement bi toogee bañ bañ waxaan dañoo bëgg ubbi jàkka yi bañ ne dañuy nañ ubbi jàkka yi jullit yi wàññeeku ne duñ ubbi seeni ubbi jàkka loolu kenn mënu ko fi kenn mënu ko firi kenn mënu ko firi duñ tëj ñu tëj ñu ubbi ñu ne duñ tijji loolu kenn mënu ko firi ma bëggoon kilifay diine ñu yëg ne moomuñ nit ñi juruñ leen jënduñ leen jàppuñ leen ak njaam dañ leen a topp ngir yàlla ak yonent bi ak alxuraan kon am na loo xam ne bu ñu ko dee def doomu aadama yi dañuy dem ba mu jàgg nag lañ jàppoon ci ñoom muy set wàññi ko par ndànk wàññi ko par ndànk ba jeex te bu jeexee lislaam jeex nañ dimbale jullit yi lii ñuy def nii kenn du dof ñépp a xam ba xàmmee lu ci waay def jullit yi xam nañ li ngay def lan la lu ci waay def xam nañ li ngay def lan la nañ dimbali jullit te bàyyi lii ñuy def bu mbir xewee kee woote fee kee ñoddi fee kee xëcc fee te julloo ci dara looy yi nit ñi ngir diwisi leen ngir yilif leen donc kenn ku nekk di xëcc jëme sa wàll nun du nuy dof suñ fekkee ne daal liñ leen fi tege mat nañ ko nañ ñu dimbale jéem a ànd nekk benn parce que lii xew nii lii xew nii li ci li ci am bu fekkee ne bàyyiwuñ ci xel dañu mujj dem ba mu jàgg néew doole ba kilifa ak diine gu yëkkatee sa kàddu kenn du la wuyu lii kat sëñ bi dara rafetul te teguwut fen nag ndax nag bu fekkee ne li ñuy wax wér na ñoom jullit yi ñoom kilifa yi te ñun ñoom la ñuy déglu lu tee ñoom ñu mën a daje su fekkee dañoo war a daje ba duñ ci jàkka yi waaye ñoom ñu daje wax ko wax ko waaye nun nu toog leen déglu ñuy ŋaayoo ko xëccoo kenn ku nekk di wane daraja kenn ku nekk di wane maqama kenn ku nekk di wane sab tolluwaay te tolluwaay benn amu ci lu may tolluwaay bi la yàlla tollal tey tolluwaay bi la yàlla tollal yaa ngi koy xamee ci nit ñi topp sa gannaaw lislaam lañ leen càmm loo lislaam lañ leen aar loo wuñ kenn ay mbooloo ki taalibe ak i par loo te xam ngeen ni lii xew nii ay par loo ngi fi ay ay ay ay yëfa ngi fi yoo xam ne ñëpp a ko xam te kenn du dof kon nañ dimbale nit ñi nit ñi diñ war a def def nañ ko de kenn ku nekk nga gëm yaa ngi fa jëm ñooñu ñu gëm nag nañ daje waxtaan di tegu ci yoon te bàyyi yi ñuy def lim leen jural kat gis ngeen ko mooy lim leen jural mooy bu gouvernement di jël ay décision du leen ci boole. parce que dara warulu ko nag lu may ki yaa ñàkk sa bopp fayda waaye koo xam ne ki quatre vingt pour cent yaa ko moom cim réew gouvernement bi amu fi dara say nit lañ séddoo ba falu ba bu ba te bu ñuy jël ay décision duñ la ci boole xam nga ne tegoo taxawoo fa nga war a taxaw kon nañ dellu si jàppale julli yi dimbale leen te bàyyi yi ñuy def daara yi maa ngi woo gouvernement bi Macky Sall de maam ma Darou Mana ma Mana ne mu saaw balla waxoon na la ne Macky Sall sama xarit nga waaye looy def bul ci boole daara yi gis nga daara yi moom saa boo ko laalee rek àdduna tukki yàlla du ko xaare kenn te yoon wii ma gis ñu aw jël ay daara di ko jël seeni borom naan dañ koy delloo seeni waajur waaye koo xam ne kii ba muy jur doom fekke woo ko ba mu ko yar fekkee woo ko ba mu ko yóbbu ci daara ji fekkee woo ko fekkoo ko ca daara jaak dara nga toog ba yàgg nga da nga koy jël da nga koy delloo waajuram waajur war naa am fayda ju toll boo ko indee mooy la ku la ko indiloo sama doom ji ngay di ku la ko indiloo ñu naan dañ leen di yóbbu ci ay santar dañ leen di def waaye bu fekkee dëgg dëgg la rek kay ki ji di yor daara ji di leen jàngal yow nga am loo mën a yore gone gi ci santar la nga yore gone gi ci santar te nga ko jox borom daara ji mu yore ko daara ji bu fekkee li ngay wax dëgg la yow kay coono yi nga nar a di ko yor kii moom yor na leen ba noppi yor na kër yor na lépp yow da nga ko nar a yor santar ba naan santar gindi santar xaw ma nan <coughs> bala ngaa def loolu kay waaye waaye xaalis bi nga ko nar a yore nga dem jox ko daara ji ne ko ne ko téyel gone yi gis nga caaxaan baaxut te bëgg naa ngeen tey ci ndax gis nga daara yii mook julli yi ñu àndandoo seen ngëm-ngëm la de ku ko laal laal leen bis lay ñëw boo xam ne bis bu tàng jër lay doon sëñ daara yi nag yee jël seen daara di ko yóbbu ñoo ñàkk bopp koo xam ne kii ba ngay sos sa daara fekkiwu ko lam yoro kas néew di ko séddale nit ñi di ko séddale élèves yi jàng yow yow yow dongam daara yi bokkoo ci mu fekk la fa naan damay jël sa daara bu boobaa ne yóbbaale sa bakkan loolu duy wax kat delluwaat leen ci gannaaw sëñ Abdou Aziz Touré dégg naa li mu wax dégg nañ ko bu baax loolu wax rek ay dëgg ànd nañ ceeg moom kilifa yëpp yëg nañ ko bi ci toppaat mooy gouvernement bi coronavirus bii de war ngeen ci am lu ngeen ci jànge li ngeen ci jànge mooy xam ngeen ni nit ñi gëmuñ leen wóoluwuñ leen jàngoro joo xam ne yaa ngi koy gis man caa teg sa loxo di wax nit nit ki ne ko jàngare jàngi ni mu lànk ne du jàngoro ji xam nga ne yow la gëmut yow la gëmut li tax nag bu ngeen leen waxee du ko duñ ko gëm nag loolu moo mat a seetaat da ngeen leen tàmm waxte li ngeen di wax doonu dëgg moo tax bi ngeen leen di waxee rek jàngoro jaa ngi nii ñu ni du dëgg la waa ji waxoon rek laay wax bañ duggee ci oto oto bi accidenté ñu ñu bari faatu ñuy génn néew yi di teg di génn ba yàgg ñu génne benn waaye mu ne faatu ma de waa ji ne ko yii faatu na de ab politicien la day wax rek faatu na mu ne faatu ma ñu ne ko faatu na de ab politicien day politique rek yóbbu leen ci ñu faatu suul ko loolu moo dal politiciens yii maanaam nit ñi dañ leen a mënut a wóolu nit ñi mënu leen a gëm loolu moo tax nag loolu mat naa xoolaat nii kenn du ko yore ab population di leen wax lu dëgg ba ba boo leen waxee dëgg ñu weddi ko loolu dara jaru te loolu moo am nag ndax fi ne coow laa ngi ne cobbay te nit ñi ñoo fexe ba gëm wax ji te day Tuubaa gii day ba leen ko Sëñ Muntaxa waxee génn xaalisam def ci ñépp ko daal di gëm ci saas waaye bu leen ko gouvernement bi doon wax ba déwén duñ ko faale loolu nag bu dalee ab gouvernement war naa xoolaat boppam xam ni moom mii yoon wi mu jaar du yoon wi te noonu kenn du ñu yaree ab population bi ci toppaat mooy couvre bii nga xam ne moom lañ def gendarme yi ak ak policiers yi nga xam ne ñoom lañ ko dénk xeeti reewande yi ñu ci ware ak itam nag xeetu xaw ma kañaan lañ koy tuddee xaw mag mbañeel lañ koy tuddee xaw ma topp ji nit ñiy dóor ak a gaañ leen neex def te mbir mi du du xeex bataille sanitaire la danga war a laaj bi nit ki wan ko yoon dimbale ko jàppale ko waaye nit ki nga doon aar nga far wàññeeku di ko gaañ ba lu lu raw lu raw li nga aare loolu laa gis man ñi nga xam ne ñoom ngeen leen yóbbu ci terrain bi yar leen leen jàngal leen te wax leen réew mi fi mu toll am réew ku ca nekk da ngay xam réalité réew ma waaye fekk imaam ci ci jàkkaam nga di ko jàpp di ko dóor ba di ko gaañ loolu ab jullit du ko def waxuma la ab jullit mais nit ku nit sax du ko def yaa ngi romb nit ki ci buntu këram ne ko dugal ci biir kër gi rek bu fekkee jàmm nga bëgg waaye jàpp dóor dugg ci biir kër jàpp ay nit dem dóor gaañ loolu dara jaru ko waxuma la sax ñu di ci boole ay wax di wax léeg-léeg ba ji ba ba dépassé nit ñi ba yàgg seeni kilifa yu gouvernement na ci bàyyi xel yu tuuti la yoo xam ne mi ngi koy xeeb te day gën di màgg rek te gis nga nit ki su fekkee ne da nga koo da koo yare noonu mu ne cell bis bu fi fippoo rek musiba am force de su ko yore ab population population da ngay wax ak ñoom yërëm leen dimbal leen te xam ne bañ lay fal looloo taxoon kon nañ xoolaat ci wàll woowu bi ci des mooy da waxoon de daaw di atum social la waaye ren jii nag moo war a doon atom social ndax ceeb bi ñuy séddale dangay gis ku dikk ne la nañ seet ñi ko yayoo man de xawma beneen koñ waaye koñ bii ma dëkk rek ñépp a ko yayoo koñ bii ma dëkk soo bëggoo nat naan kan kan moo fi yeb yeyoo ndimbal li doo bàyyi kenn ñépp ngay bind kon suñ bëggee dimbali nit ñi bu amut ko ko yeyoo ñépp a ko yeyoo nañ leen jox dimbal suñ leen mënta jox ndimbal mënta daj xaalis bi ñu jëlee muy junni milliards yooyu ñu teg ko ci prix bi wàcce ko ba saako ceeb di jar junni kon yépp dañ ci man a jot su fekkoon dañoo bëgg a dimbali nit ñi dañuy wàññi ceeb bi wàññi suukar si wàññi dewlin bi benn bu nekk ñu wàññi ko ba ba ki néew doole mën caa joti su boobaa danañ ci jot kon nañ dimbali nit ñi nit ñi sonn nañ de boo demee ci àll bii de la fa nekk kenn lu ko wax kon ren jii atam social la bi ci toppaat nag mooy ah, nawet baa ngi ñëw nit koo xam ni kii amoo loo nooroo xam nga doo am loo nawetoo kon gouvernement bi na bàyyi xel ne réew mu réew mu sonn mu xiif mu feebar moo fi nekk ma bëgg mu jàppale leen jàppale gi nag bu mu ko jaarale ci politiciens yi la ma la waxoon na ko jaare ci nit ñu wóor ñoo xam ne yi jàppale dañ ci ndax li ëpp ci li ñuy séddale kat dégg lañ ci am ndax boobee ba léegi kenn taawagu fii ne ma li ñuy séddale gouvernement bi jot naa ci kon nañ dimbale nit ñi jàppale leen baykat yi nañ leen dimbali amuñ jiw amuñu dund amuñu matériel bu ñu bayee la muy jur nag mooy suñ de soo ngeen leen bàyyee noonu ñoom ñëpp dañuy bàyyi foofu yi àll ba ñëw fekk si leen foofu ci tax yi buuxanteeg yéen ci li ngeen loolu ngeen yor ñu jéem caa am seen gëm kattan te it na dimbali nit ñi wutal leen ab diir boo xam ne bi daañ ma ñibbi seen kër yi ndax na nga xam ne kat fii de am na fi borom kër yu yalwaan yoo xam ne bii seen alal la nga ndakaar dañoo mënta dem am na ñoo xam ne ña nga ndakaaru bëgg ñibbi bay mënuñoo dem gouvernement bi na jël na na na na na def xelam ci xam ni nit ñi dañoo sonn amaa ñi ci des nag diggante ministère yaag député yaag attekat yaag ñaaju ñoom ñoom ñépp ñoom ñépp rek xam nañ ne nekkuluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal nit ñaa ngi xiif ba sonn amuñ amuñu dara amuñ fuñ jëm amuñ ku leen jàppale damaa defe woon ne kay kenn ku nekk day wax ne man de sama salaire ñaari weer joxe naa ko ginaaw nit ki nee nga ko toogal ci sa sa kër te amulum lekk yow nga ne ko toogal ba nag bu weer dee nga fay sa sol def sa poos xam nga ne yaa ko tey nu fa toog bu fa toogee lee mu jóge fa su fekkoon ne daal bëgg nañoo dimbale doomu aadama yi dañuy maye seen sal seen salaire ñaari weer ñu dajale ko jox ko doomu aadama yi ñu dimbali ko ah, ah, assemblée bi nag moom ku leen di tudd sax daanaka moom jurul wax moom assemblée moom ñooñu duñ dara boobaak léegi ndax dégg ngeen leen fenn te nee ñu yéen lañ fa nekkal ndax dégg ngeen kenn ci ñoom tàmbale ca Moussa Niass ba ca suuf seen caisse noire googu tey ñu tibb ci génne ko dimbale ko doomu aadama yi lu may ñu toog di seetaan déggoo ci kenn kon boo liggéey gi si biir bala ngeen a farati député na ngeen xool kii kan la naa noo ngi ñaan nag kilifay diine yi nu waat nekk benn